ne ku yëggatoo sa yaay jàpp say tànk loolu wolof da koy wax waaye néew na jigéen am doom doom ji am jafe-jafe àdduna yaayam mën naa waat wax ne waxtu sàngam la ko dal dafa am benn ndox bu ñuy wax fàllu foo ko fekk ci mbedd day jeex boo ne koo fàll li nga jeex mu ne li may jeex du feeñ ndax sama yaay ko ci loolu wax ju xóot la wax ju xóot la ma ne li may jeex du feeñ ndax sama yaay ko ñu ne jigéen ñëpp yam koo ci sobal ab dog balaa su koo sobal ab dog balaa tees mu dëbb la bii nu way juróom waaye aha kay góor ñi responsabilité bi ñu am ak ñàkk ak daw gi ñu daw responsabilité nga xam ne boo bu ne yokk rek ñu teggi seen tànk tax na ñoom it tas gi di bari lool lool lool su ñu lay bëgg fukk yu ñu la wax juróom-ñeent yi moom la ci ginnaaw kër ga la lépp wax ju neex lañ la waaye boo ñeenti kër gi ngay commencé gis réalité yi yépp di am yëpp di am yépp di lépp ci jigéen ñi bu toogee di waxtaanee néegu sëy seen xale seen doom bi nga xale bu jigéen la su ko fekkee ñu ne ko demal nga fooy daf ko war na fekkee ndax bu ëllëgee mooy wàcc ci terrain bi mooy dund réalité yooyu kon war nay fekk li way juri di waxtaan waaye lan moo tax ñaan nga fooy mooy lépp ci ñoom muñ toogee ca garab ya la ñuy waxtaan du baax duñ bëgg xale bi dégg ko waaye fekkoon dañuy wax ci jafe-jafe yi néegu sëy yi am ak muñ jeeg yooyu seen doom bu jigéen bi di ko fekkee bu ëllëgee bu wàccee ci terrain bi dana xam ne lii mooy la doon dégg nga xam ne Sénégal boo xoolee takk gi ñuy takkee sëy dañuy tiital ndaw si ba bu ëllëgee bu jafe-jafe amee rek day daal di day daal di dem yoonam ndax da ngeen yàlla sëy benn neexu ci ah, paanu kaani la tuuti lem la dekk ci kaw di la tiital boo ko defee ñetti weer wala jafe-jafe mu leer la kon lii kanam la jëm da ngay yokkat ndax da jàpp ne kon jafe-jafe yi dootu jeex ah kay jafe-jafe yi dafay jeex ndax na moom lu neex ak lu naqari lu baax ak lu bon ñooy jàmmaarloo ba keroog saa di taxaw ba keroog saa tax waaye calcul yi am ci biir néegu sëy ak ñi ciy dugg ñàkk gi nu ñàkk xam responsable xam ne lii jaamu yàlla la ndax xutba gi ñuy xutba ca jàkka ja tam concerne ñaari way dencante kenn ci ñoom du ko ci fekke te wax dañ ko war na fekke xam mbir ya xam ba liggéey la cay la cay aju mu ñu leen tegit di war a am ci fànn yu bëree bëri beneen bi def mooy pas-pas bi ñu am ci biir néegu sëy yi dafay des ndax daa la jox misaal mën ngaa jël ñetti jigéen ñetti jigéen kenn ko jox kenn ku nekk nga jox ko dépasse juróomi téeméer ñoom ñëpp ñu bokk dem marché jox la ceebu toggal la ceebu jën am na ceeb boo xam ne saa yoo ko lekkee waxtu woo jaaraate ci buntu kër ga sa ne saa nga wut socc wala xel tey loo ko waral pourtant ñoom ñëpp juróomi téeméer lañ leen jox waaye pas-pas bi ak yéene gi ak wàccuwaay gi ak manante gi ak jaayante ngir ba liggéey ñu am doom ju baax mooy tax ñetti ceeb yooyu du bokk te pourtant ñoom ñëpp dépasse juróomi téeméer lañ leen dafay sëy ngir ba léegi ay doomam man a tekk lu bari Sénégal yi dafa ñu am yoo xam dañ koy jaawale dañuy jaawale wërsëg ak liggéeyu ndey liñ ja liñ jàppee liggéeyu ndey moom bu fekkee loolu mooy liggéeyu ndey li ëpp ci nit ñu ñuul moom bu sañee wax moom mën nañ ne kon seen yaay yi moom war nañoo góorgóorlu ndax nit ñu ñuul ñoo dugg ci gaal yi ñooy faatu ci gaal yi te nit ñu weex yi ñoo ëpp ñoo xaalis ndax lu mën a doon ci adduna nga am ko rek gëmul yàlla ëppali na la ko kon liggéeyam nday nekkul ne wërsëg la liggéeyam nday du caagi ay meuble la liggéeyam nday du caagi ne sa way jur dana naa liggéey bay bëgg a dee yàlla dogal ci yow nga bokk ci way ñàkk yi loolu diw sa way jur liggéey waaye bi ñu ko jàppee nga xam ne ku te ku tekk la yaayam liggéey kon tubaab yi moom ban nga ne boo jëlee cent yoo jël quatre-vingt-dix seen yaay liggéey nañ nit ñi ñuul nag cent yoo jël moom man nga ne benn wàll ba kon safaan bal kon communication yu ñàkk ya baax yooyu doomu aadama yi di ko def mooy tax jafe-jafe yu bari di am ci diggante uh, way li nga xam si bokk na ci liy gën a tas sëy yi mooy ñaari ñi nga xam ne ñoom ñuy ànd di bokk di nekk daa gis ñaari way dencante nga xam ne saa buñ toogee seenu nekk dañu mel ne ñaari moomo kenn du wax ak sa morom ku góor ki moom du gis ba ñëw jàpp na ne kër gi moom li fekk mi fi nekk di reer daa ñàkk fayda daa war a mel na jaani saamaan moom di futtandi ko te mbedd moom day ree bay keeku fu mu ko teg xale soxnaam sax ñi mu koo ñaan lu mu jëndee connexion soxnaam ñi mu koo ñaan lu mu jëndee connexion ñi mu koo ñaan crédit te am na ndaw soo xam ne saa bu connexion jeexee moom moo koy rempli du ko ñaan forcé forcément mu def ko fu mu ko teg xale yi bu lekkee lu neex tabaski daa jot kër gi du fi def moom jàpp na ne saa bu ñëwee la war doon déedéet wër ta demee noonu seen i bee seen i borom kër duñ ko xam seen soxla duñ ko xam na nga gis benn borom kër boo xam ne day waxtaan ak soxnaam naan ko bëgg naa projet sàngam bëgg naa projet sàngam mukk du ko wax mukk day jékki-jékki rek gis muy xëy def ndax lépp jàpp na ne moom dafa ñàkk fayda jàpp na ne fayda ji ak ngóor gi mooy chaque jour daa war di not soxnaam kilifteef gi nekk déedéet wër ta noonu nit la la jox ko ànd na ko te yow leen def ci xale bu jigéen ba jox la ko bu ko def sa ah kon jigéen lañu war a joxe moo tax ñu jox la waaye dara juddu du ñàkki bopp ba la laataa ngeen jot da doon lekk di naan am ay wayjur yàlla teral ko muy ku tedd nga war koo jir war koo yël war koo yiir war a nekk ak moom waaye bul jàpp ne saa su nekk rek da ngay am kilifteef boo xam ne bu tàggoo war a seet ay bokkam nga ne ko doo dem xew nga ne ko doo dem chaque jour yow kilifteef gi te soo soo am dox ko wër la demee noonu yooyu nag bu yàggee mooy waral fipp di am ndax bu jigéen ni ween ni sëggee ni la xel wax ju yàqu la jigéen dafa am xel ëpp góor xel yàlla def ko muy doomu aadama te alxuraan moo jël doomu aadama tere ko wala xadd karam naa bani aadama wa amalnaahum fil barri wal baxri beneen aaya dellu waxaat ne inni jaa'ilun fil ardi xalifatan xalifatan boobu nag yàlla ba mu ko waxee waxul ne góor laa ko def waxul ne jigéen laa ko def doomu aadama la jël def ko ci kaw suuf muy xalifa kon ni góor baaxee jigéen baaxee noonu la baax waaye jigéen gi bu mu dégg baat yi wolof di wax naan ñaari loxo mooy takk tubay ñaari loxo mooy takk sër kon lu mu def déedéet bu ñaari loxo takk tubay ñaari loxo takk sër yow sa jëmi bopp it duñ la jox lépp nga jël lépp am na foo war a yam am nga say sañ-sañ am nga yeneen yoo xam ne sa diggante ak sa borom kër bu ne ku képp ku dul moom wala taa jox ndigal nga def ko waaye ëpp ci soxna yi copines yi ak yi ak nettali yi dangaa ñàkk fayda bu doon man bu yëpp dana waral ah, yu bëree bëri di am góor ñi moom saa yoo jël 90 mat gën war a mat bari soxna yi dafa des maanaam mat gën war a mat bay war a yor soxna bay war a mën a nekk ak moom lu bëree bari dafa des moo tax fi ni jamono ji sëy yu bëri yoo xam ñu ngi koy divorce lay mujj kon nag yooyu bu dem ba am loolu nañ koo jàngat jël ko di ko teg taabal xam ne ñaar ñi ñuy mayee dañuy war di bëggante mu ni ko Serigne Touba waxee woon bëggante di am waaye jigéen du bëgg day miin loolu wax su fekkee ne da ngaa ay pexe ba jot ca su pexee tasee dafay jóge te li ëpp it ci nit ñi suñu bëgg duñu ànd ak seen sago ba yu baree bari yee tax ba ndaw sa nangu ba nekk ak yow daanaka am na lu ne ca ginnaaw loo xam ne euh, du neex a wax kon nit ki sa aqulaayi taxalaa ni nga mel muy sa jëmm del présenté woon noonu ci soxna si nga bëgg mujj mu maanaam mu doon mu doon mu doon sa soxna te yow mi jur di takki soxna bul xool rek soxna si taar bi doon te ci saat si la bokk waaye yow su objectif ginnaaw jàmm yàlla gi mooy doom yi ngeen war a am tañ war a bokk société bi ëllëg war a nekk ay ñu nekk ci lislaam war a jub ci lislaam war a am yaru lislaam nga xool askan wa xool jëmmam xool farloo mam yooyu yëpp ci jàmm yàlla da cee daal di bokk yooyu yëpp ne sa fekkante ne amul jafe yooyu muy jur ci tas rek lay jëm tas kese ci lay jëm kon góor gi responsabilité yi moom ci moom la gën a gàllu ndax bu dee fukk la juróom-ñeent yi moom la war waaye nag dafa am loo xam ne moo ñëw gàllu ci mu li tuddee alxuriyatul mutalaqa muy liberté totale ak li ñu de parité ndax parité yàq na lu bëree bëri ndax bu ñu ba gëm lu ñu ne ni góor génneew gàddu saak war a tukki loolu la jigéen war a génnee gàddu saak dem tukki ñu am mi daan teg ko ci kër gi ndax loolu leen tubaab jàngal yéen ñaar yéen a égalité xale yi judd ci kër gi borom kër gi moom tënu ko mi ngi liggéey wala mi ngi tukki dem di ñëw yow jàngal nañ la parité droit de l'homme droit de la femme yow yaa ngi dem ak a ñëw xale yi mbindaan ni di leen yar ñuy seetaan télé bi di copier jukkay tubaab bi soo lëggee xale yooyu mun ñoo fexe ba am lu baax mun ta nekk ak yi ñuy seetaan te lépp ñu ñu koy jox te du dëgg bokk na ci liy tas sa yi muy sér yi di daw ci télé yi nga xam ne boo xoolee acteur bi actrice bi amagul sax soxna amagul sax borom kër waaye lépp ci li ñuy dund li ko li ñuy sooy ci scénario yooyu jigéen ñi di ci concentré wu góor ñi ci concentré wu am na ñu bari seen néeg ci foofu lay tase ci foofu lay tase waaye nga gis jéeg xam ne saa bu aayee xare xare xaree kontaan wuta demee noonu saa yoo mere sa borom kër wala nga mere sa na kër yoo xam ne saa bu saa bu ab jéeg aayee xare dañuy kontaan ndax xam nañu tay faaw ñu wetti lu bari kon wuta demee noonu ñoom nga xam ne defante googu nga am seen biir yooyu di jur yu bëree bëree bëree bare bëri ci ñàkk a moral ñàkk a mën a muñante xol yi fudd nga xam ne tàngal diw soo dee sa borom kër tàngal ndox soo dee sa borom kër jëm ko paaka yooyu yëpp buñ doon delluwaat ca uslu ba delluwaat ca cosaan ya yooyu yëpp mën nañ cee mucc waaye lii nga xam ne moom la jamono di ñu tuddee alxawlama alxawlama mooy lii arabe yi di wax euh, li li ñu naan mondialisation muy benn système de vie mooy benn dundin boo xam ne ñëpp dañ ci euh, ko nga xam ne kilifteef dafay jeex alxuriyatu moo tax ñëw taxaw ba tey wóote demee noonu ku jigéen ki lépp lu mën am na xam ne borom këram moo ko dafa xam ne ku jigéen ki bu nekkoon milliardaire moom mu nekk aji góorgóorlu dépense bi ci kër gi moo ko war di joxe moo war di faj xale yi moo war di fay njàng ma moo war di fay courant bi sa sa soxna bu nekkee milliardaire daf koy ñeex kese mu jël benn dërëm dugal ko ci loolu faaw ñu di ko xam soxna si moom mën naa nekk milliardaire waaye ginnaaw yaa am responsable dem bay takk yaay dundal soxna si yaay dundal gone lu mu def ci kër gi da koy neex lu mu def koy neex waaye nag xoolee fii nga xam ne Euh, jamono toll nga xam ne matériel ak ay bien tax na booy xool daanaka xeebante gi ak sufalante gi ak ñàkk gi ñàkk sutura nga xam ne lépp léegi boo xoolee ci néegu sëy boo demaatee ci réseaux yi ci whatsapp yi dafay tasaaroo nga xam ne sutura amul dara amatul moo tax léegi sëy yi barki amu ci tas bari jaaxle bari tumuraanke bari te yeneen bi sallallahu alayhi wasallam dafa wax ne jigéen ñi dee leen leen yërëm jigéen ñi dee leen muñal ndax kat jigéen kat tas gi saa bu amee loolu gi moom ci moom lépp ndax bu fekkee ne kat bànneex yooyu ñuy wax téeméer la juróom-ñeent ak juróom-ñeent ci jigu jigéen ki la lay nekk waaye ñoo xam ne jigéen borom këram bi ko yàlla booleel dañoo wax ne benn bakkanam bi bu doon génnee dëtt benn bi di génnee deret mu sëgg ci di ko mar di ko mar guddi ak bëccëg tax du tax mu def àqi borom këram te ki gën a rëy jigéen ki gën a rëy ci àq mooy borom këram kon borom këram mooy sëriñam mooy wasilaam mooy sangam mooy léppam mooy ki dox ci diggante ak boromam waaye nag ngay farlu ci ibaada di farlu ak moom ci jaamu yàlla soxna si buy nawlante ak borom këram na nawlante moom ci ak jaamu yàlla na nawlante moom ci ibaada waaye na nawlante ak moom ci euh, bëgg lu baax ni nga xam ne si ne Mame Mariama Bousso Diarratou bi waa Moussa bi dajee na ko dañ jox koo xam ne jàngalekat alxuraan la du njaboot gu baax ci jamono dina war ne man jàppee ab yonent waaye léegi xoolal Cheikh Mamadou Al Fadal Mbacké bu demee ba wax ne wàlli yi ñi ngi bari ci kaw suuf si waaye gisagun benn jigéen bu mën a jaar ba wàcc ñëw ci kaw suuf te alxuraan wax nañu wal baladu tayyibu yaxruju nabaatuhu bi idni rajulin xabusa laa yaxruju illaa nakidan suuf si teey moom mooy jur gàncax bu teey kon naka dañ koy déggee ah kay jigéen ñi ñoo ngi baax waaye jigéen bu mel soxna jaara doon demal nañu amatul waaye góor bu mel ne Mamadou Sëriñ ndax bareeti na ndax bareeti na kon foofu ñu xam ne ñaar yëpp dafay dafay dafay am mag gi doo ko ndax fi mu toll nii bari yaa ne jigéen ñoo xam ne tey tàggoo xew bu ñu dem rek ñu ñu tere leen ñu tàggoo waa ñu tere leen ñetteel ba duñu tàggoo yooyu yëpp ay ay conséquences lay jël naka jigéen boo xam ne la soxla ci lu baax bëgg lu baax waaye du am ngërëmal yàlla mas nan tey mën na jox exemple poroxaan li ñëw nga bëgg maam jaar moom jaral la jooy sa borom kër bàyyiwul la nga dem poroxaan yow du yër maanaam amoo ko yërmande yàlla daa nga jigéen saa bu génnee kër borom këram di dox ci ndigalu nekkul ndigalal borom këram tànk bu mu jéggi kër la ci sawara tànk bu mu jéggi malaayka yi ñu ngi yi bokku ñoom ñoom ñoom amuñu bàkkaar laa yahjuuna maa amul wa yafaluuna maa yuumal lépp leen yàlla digal dañ cay nekk te dañu mooy seen borom subhanahu wa taala waaye nag fii nga xam ne fii la àdduna toll fo mi bari télé yàq lu baree baree baree bari euh, ñu ciy jël di ci copier te warta demee noonu loolu tax nag yu bari di am ku góor kii soxna seen takk andi ko mu nekk ak moom na xam ne soxna si li ma waxoon sax moom doonte am na ay am na ay rak am na ay waaye soxna si bi nga koy takk tëkkuñu ko maanaam tëkkaluñ ko sa way jur bu góor tëkkaluñ ko sa way jur bu jigéen tëkkaluñ tëkkaluñ ko say rakk yu góor tëkkaluñ ko sa way ji sa rakk yu jigéen waaye nag moom ci lu man ci lu baax kër gi ñëpp ci la ñu waaye ñëpp ci sëy yi ko ña koy tas boo xoolee da ngay gis koo xam day dem ba si nga xam ne moom jógewul ci kër gi amaatul borom kër waaye càmmiñam saa bu takkee soxna andi ko moo indi ay jafe-jafe indi ko ay jafe-jafe ba dafay mujj dafay jóge nga gis yoo xam ne daanaka ñoom nekk ak ñoom it dama yàlla jéggal lu jafe-jafe kenn mënut a daf seen bànneex kenn kenn mënut a daf seen bànneex médital guddi médital bëccëg yooyu yëpp daf ci daf ciy am mel na ko ñu ngi junñu ne waxtu yu jot na li